bisimilah rahmaani rahim damay sant yàlla bu baax a baax baax donc di sant euh, ñi ñu àndandool di def lii defe naa lii euh, c' est pas facile pour que ñu organiser ko donc dans un premier temps dañuy commencé par euh, di remercier ñi nga xam ne ñoo jàppale ba ñu réaliser lii yëpp donc en premier ñi remercier le maire i ici présent nga xam ni bi idée bi amee dañ ko contacter donc il nous a remis un important lot de matériel boo xam ni tey bu ngeen gisee kit yi ni mu demee nii nga xam ni loxoom dugg na si. di remercier aussi le le le le le directeur du port qui nous a euh, aidé aussi en matériel donc euh, mu permettre ñu réaliser suñu objectif. ya y a aussi l'entreprise Sénévet ki est à côté ko xam ni moom tamit chaque fois qu'on a des des organisations euh, pareilles moom tamit daf ñuy daf ñuy jàppale c'est une dame qui est là qui est dans spécialisée dans la distribution de matériel vétérinaire donc à chaque moment moom daf ñuy jàppale aussi. mais aussi on peut pas parler de de de de de la réussite de cet événement sans parler de nos compatriotes qui sont dans la diaspora donc mu ñëw ay de la cité marine yoo xam ni ñoom tamit ils sont de l'autre côté mais ils pensent toujours à la cité donc ils ont compris que fii euh, au Sénégal les moyens sont limités et donc euh, ils font ils se cotisent donc ils ont formé une sorte d'association au niveau de la diaspora pour nous appuyer à chaque euh, événement donc euh, euh si événement bi aussi li ñu si dugal bëri na donc mais l'essentiel du boulot c'est mooy ñi nekk fii ànd soxal Cité Marine ak waa ànd boole euh, booloo defar suñu gox bi dëkk Cité Marine ñun ñoo boole suñu doole donc ku nekk def li nga am ñu ñu réaliser lii di ko réunir tous les jours di def chaque jour ay ay ay réunion combat yomba yoo xam ne ça nous prend tout le temps dañuy réunion fii ba 11 heures ba parfois ba 23 heures 24 heures donc rien que pour la réussite de cet événement donc loolu mënu ma ko moom tamit dugal na loxoom si événement bi def na si vraiment kéem ci lay kattanam et puis ça nous a permis de comprendre que suñu jigéen ñi fii si koñ bi am nañ ay formation yoo xam ni na euh, nañu exploiter ko parce que tout le savon savon yi ñu doon def fii ñoom ñoo ko doon defar ñoom ñoo ko doon euh, def nañ de formation savon donc ils nous permis ñu defal ñu ay savon nous ont fait aussi de l'eau de javel donc euh, en quantité de presque cent bouteilles d'eau de javel donc loolu tamit te bu doon eau de javel boo xam ne moo gën a saf sax bi yi nga xam ne moom la ñu jaay si boutique yi donc yëpp nag c' est des à saisir donc loolu moo ñu wan ne que les femmes doivent être ensemble ñu jàppale leen ñu dem ñu dem parce que ko mun a liggéey euh, eau de javel mun defar savon mun nga def production donc il faut les aider vraiment ñu jàppale leen pour que ñoom tamit ñu mun a créer benn boutique boo xam ne day jaay euh, savon ñu fexe ba nga xam ne suñu commune bi yëpp boutique bu fi jaay seen produit ngay jaay parce que bu population bi décidé ne consommation Euh, eau de javel waa waa Cité Marine la ñuy def donc bu waa ils seront obligés di ko jënd di ko jaay ñun ñu koy jënd di ko di di aider suñu association bi. voilà Covid bi nag dafa nekk benn dafa benn nekk loo xam ni dañ siy dugg léegi parce que dafa nekk euh, loo xam ni mënuñ si bañ a dugg parce que comme le di le maire donc on est menacé chaque jour boo déggee si information yi à la rajo à la télé toujours on cite les les, les nos donc euh, c'est pas bien de les de les citer mais c'est une évidence. loo xam ne dafa la jege danga war a fagaru ñu toog di seetaan ba Covid bi dugg si koñ bi parce que fii ni ñu dëkkee ñun ñëpp xam nañ ko dañuy dugg dund si promiscuité kër yi dafay bëri nit macha allah donc xale yi dañuy tëddandoo ensemble mag ñi aussi dañu nekk ensemble te suñu màgget suñu kër yëpp léegi ay màgget ñoo fa nekk donc on a peur pour suñu maam yi suñu yaay yi suñu papa yi donc pour que affaire bi atteindre leen donc moo tax ñu def ni ne lii moom il faut ñu def si ak ñu dem si ak force def bruit boo xam ne dana alerter ñëpp ñu xam ne que Covid bi menace la ba pare nekk na loo xam ne lu réel la parce que ñun xëy na ñun ñu nekk fi ñëpp duñu gis gisaguñu ku mu jot ku mu jot mais am nañ fi ay médecins yoo xam ne xam nañu danger bi fu mu toll ba tax na dañu war a jug taxaw lutter contre Covid bi mu jugee mu bañ a dugg Sida Marine mu bañ a dugg Castor mu bañ a dugg fépp mais Sida moom ñu def bouclier boo xam ne vraiment tout le monde est avisé ku nekk am ay uti yoo xam ni vraiment bu ñu koy bu ñu koy utiliser convenablement mun nañ dem ba nga xam ne Covid bi mun na mun na jeex sax te duñu wax Sida Marine am na benn cas. loolu mooy suñu objectif zéro cas à la cité marine voilà. woon ay kër spécifiquement euh, mën nañu ñaata kër ngeen ngeen doon joxe kit yi. voilà cité marine cité marine dafa nekkatul cité marine bu amoon cité dafa yaatu léegi cité marine dootuñu ko lemale si cent quatre vingt quatre cent quatre vingt cinq maisons parce que dafa am ay euh, quartiers yoo xam dañu jege woon mais ñu dem dans le temps ba nga xam ni quartiers yi dañoo lëkkaloo léegi léegi mënatoo wax cité marine te waxuloo cité Asegna parce que kii dend ak man nii. ay habite cité mais li cité marine du def lu nekk mu ngi si biir ay doomam fii la ñuy fréquenté dañ dem ba nga xam ne jàkka ji waa pa Asegna yi ñoo fay nekk donc nag loolu bu demee ba am Asegna dañ koy boole suñu biir cité crédit foncier bi ñu dendal nii c'est la même chose lépp lu ñuy xewle ñoom dañu ñëw taxaw donc cité marine léegi dafa yaatu donc bu ñu defee suñu kit yi on a tout le monde ñu xam ne léegi cité marine dafa nekk benn sphère boo xam ne ya euh, ëpp na nekkoon bu njëkk donc bi ñu def prévision yi on a prévu Euh, cité Castor bi janoo ak cité Marine on a prévu pour euh, cité crédit foncier ñu koy wax cité Éthiopie donc euh, on a distribué autour de trois cent cinquante masques kii kit donc ba léegi nii on continue à distribuer parce que am na ay yeneen voisins yu ñu ñëw du ñu di ñu pour que ñu ñu boole leen ci distribution bi.